bu doon mbayum nawet la mbay mu mujj mi jërul bay loole la Barcelone def maanaam matcham bu mujj sax jërul football fekk qualifié na ba pare catalan yi may topp kontaan naa ci yéen di leen ndokkeel bu baax a baax ci seen victoire bi nga xam ne boo ama am solo la di ko bokk ak yéen ma gërëm leen sant leen ànd beeg Aladji Malick TV am na solo ànd boobee ñi ngi ñaan mu jëm kanam ci information yu wérte wóor yi nga xam ni ñu ngi ko fiy soqi ko yeneen yi yëglikaay yi tamit ñëpp kenn ku mu ci man di doon li nga war a def def na ko ginnaaw yëgle bu am njariñ bi nga xam ne Serigne Moussa gars yi niñ leen di toppalee maanaam seen sànce ñun Taïba Taïba yi ba sànce bi ngeen jot seen i caabi ñi ngi ci période nag maanaam monté lamp yi moo tax daanaka ma présenté leen ci suñ sawrin bi nga xam ne moo nekk marché central bu Thiès Taïba Taïba yi ne fa sawrin boobee nag tey lamp yi nga xam ni moom mujj a génn ci dernière génération yi nga xam ni adduna wala ngal kàpp boo ko doon coytu doo fa gis lamp yu gën a jaar yoon gën a originalité tey it ñu jënd ko ci njëg goo xam ni lan leen ko mën a jaaye dana mucc ayib ngeen for dara te du am benn jafe-jafe loole nag tey jii moom laa leen andil ngeen gis façon lampe bu dul jinne am na ci suñu place la leen koy may nag mooy ngeen def seen i commande mi ne Thiès mën ngaa gaaw def euh, sa commande yow mi fa nekkul mën ngaa dàbban ñi bu baax a baax xool euh, fi nga mën a jaar ci téléphone yi ba mën a jot ci say bagage ñu ko njëggu yomb lépp nag taw fii lay doon fii ci Taïba Taïba yi numéro téléphone yaa ngoog Moussa ñim àndal Ousseynou ak Assane ñoom ñëpp am nañ xol bu sedd ak péexte xam ni ah, man koo jot ci barke euh, ndax liggéey bu mucc ay bi nga xam ni gone yi ñu ngi koy am ci suñ sawrun bii sama turandoo lañ koy dooree moom as yëglekaay mi nga xam ni daa ñëw ci xëtamu njëkk yaatal ko lool mission bi nga xam ni double mission la Espagne def ko di xaaraat beneen mission wala yeneen ñaari mission yoo xam ni wër naa ñëw tey bu njëkk bi gone Barcelone yi démb gis ngeen ni danoo kontaan daat daanaka démb nag supporters yi guddee nañ ca mbedd yi nga xam ni moo nekk ca Espagne ndax am njoob lan fa maye woon njoob moo xam ne njoob ma guddee na lool ci as yëglekaay mondoo nag mi nga xam ne ñoo dëkk gone Barcelone yi ñoom buñ waxee war na ñoo wax buñ waxul war nañoo wax la ñu wax nag mooy Sao Félix mi nga xam ne gars yi tey ji moom lañ jàpp ne moo yor beñub dugub bi ndax daanaka moo dugal bit ba nga xam ni gars yi moo tax Barcelone mën a jàll ci beneen wàllu ba donte nag première mi-temps bi euh, mitti woon na lool ci ñoom biloo bi mbaaloo bi di dem gaa yi di xëccoo affaire yi mais nag lépp nag mujj na doon tawfeex ci catalan yi yi nga xam ne ci Mundo Deportivo la Corona jéglikaay bi yaatal na ko bu baax a baax yaatal marché bi nga xam ne bu Real la boo demee ci Marca yëglikaay yi nga xam ne action la ñuy xaar euh, tey jii bu 20h jotee ci Canal Plus Sport match boobee foofee lañ koy divisé ak bin sport euh, ñu koy bàyyiloo xel ñëpp nag Atlético la nag nag def ko ci xëtt mu nag ndax ko def lu rëy am lu rëy victoire bu yaatu bi mu am ñetti bal ci benn victoire boobee tax na gone sagal Espagne ci loo xam ne ñaari ndam la yu leen yebbil démb sport tamit nekk fële ca Barcelone moom la ñëw ci xëtamu njëkk jàpp ni maanaam daanaka gundaandaat gi nga xam ne Barcelone ma ko doon gundaandaat di xaanxaani loolee jeex na tàkk fi mu toll nii gone Barcelone yi nañ ca geneen wàll ba na démb ci Paris Saint-Germain mi nga xam ni démb nag am na chance ci dernière minute yi nga xam ni foofee la am ab penalty loolee nag daanaka moom la bàyyi xel bàyyi na xel dëkkandoom yi di Atlético ndam lu rëy li nga xam ne am nañ ko démb ñoom daanaka ñoo xàccandoo dóorandoo ndam loolee lépp daanaka Espagne uh, lay tudd bu ñu jógee foofee dañuy dem ci Sénégal dem ci li nga xam ne mooy record yëglekaay ñëw ci Mamadou Lamine Camara waaye dañu jiitu ci grand frère am di Nampalys Mendy Nampalys Mendy mi nga xam ne daanaka fi mu toll nii boo amul sens namp dana bokk ci match bi nga xam ni moom la équipe bi la di nant wala boog Lens war a football tey jii. bu 20h jotee ci canal plus match boobee ñu bàyyi loo leen ko xel ndax gonek sénégalais da cay bokk te tëccante bi ci digg milieu terrain bi da cay am solo tam moom daanaka milieu terrain bi buy nekk ci naas pour ñu dóor leen beneen jafe-jafe la ndax maanaam du yomb. comme ni muy nekkee ci militaire bu Sénégal bi tour équipe bu Sénégal bi bu fekkee dëju na teg tànk yi loolee du yomb benn yoon gars yi ma gërëm leen sant leen ñaan leen ngeen def seen i abonnement def li xam ne mooy maximum de partage ak émission